ba tey ci seen scandale du jour mercredi bi nga xamante ne ci lañu libéré ki nga xam ne moom mooy Bah Diakhaté mu tombé ak euh, le 21 août 2024 ñu déglu ji vidéo bi ñëwaat. salaam salaam sama gars yi Bah Diakhaté ci biir këram macha allah laf cat laf cat laf cat. sama gaynde gi barki yonenti yàlla Mouhamed gaynde APR gaa ngi nii kuy wax kuy jëf ko gën sama waaj ya wax yaa jëf. moom imaam ñu ngi noonu imaam yaa ñàkk ki ñaan barke El Hadj Malick sama xol bi daa sedd yal seen jàmm yàgg waaye seetaan leen lii xool leen lii rek. les jar Magita yee Bah Diakhaté libre na Bah Diakhaté libre na Bah Diakhaté libre na Bah Diakhaté borom baatu dëgg nag libéré nañ ko nag laay fa mi nag ah waa baax na réew mi ah baa ma ne ma yëgal leen xew mi xam naa ne yëg ngeen ko mais dama leen koy gën a laal rek ma ne Bah Diakhaté génn na ci ci ci prison ba waaw xam naa ne mu ngi nii day day waaj a màggali nag da xam naa ne day màggali waaw def na trois jours trois mois tëdd na ko dañ ko tegoon trois mois ak amende waaw deux cent mille moom ak imam imaam ngi noonu moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm ñoom ñaar daal génn nañ prison ba baa ngi noonu ci saalam di wuyu téléphone xam naa appel manqué yi ñoo bëri woon vocal yeeg ak yooyu baa daal génn na alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ñeneen ak ñeneen topp ci képp koo xamante ne yaa ngi ci kaso bi te yàlla suñu borom mi xam li gën ci yow xam ni génn moo gën ci yow yàlla na la fa yàlla génnee ndax na am na ñoo xamante ne mën nga leen yéene ñu génn waaye bu ñu génnee du doon lu gën si ñoom ñii ñi génn faatu ñii ñi génn defaat lu gën lii gënn garaw li nga xamantene mom moom lañ defoon fa donc yalla nañu yalla sam yalla aar ñu ma ne naa leen xew mi rek ni ba jaxate libéré nañ ko dal dina génn teud na prison fu mu nek ni nak rew mi nak am nañ wax kat ndax Bah Diakhaté parewul pour nopi ba jaxate mi ma gis ni ah yalla baxna mais parewul pour nopi de jadi jangan tahu que je vis Moi, me tiens au boulot En mon outil du vent